mbokk mi yow mi doon am jaaxle ci wàllum grillage yu baax mu jaral la nga jóge Sénégal dem ba bitim réew jàppale sa coono jeex na tàkk ak SFE agro business dafay ñëw ànd ak yéen garanti leen ay produit am ba nopp fu waay mën a nekk ci biir Sénégal ñu livré la ko yow mi nga xam ne yaa nekk Ndakaaru wooteel ci 77 541 34 13 wala ca Tiwaawoon nga woote ci 77 632 01 57 bu dee ca Diourbel 77 069 79. 59 62 Casamance 77 871 39 82 ci garantie bi nag li ci gën a neex ay grillage yu dëgër ci mën na dund ci diiru fanweer jàpp juróom fukki at kon bu leen ko kenn nettali daw si leen gaaw ànd ak SFE agro business seen njariñ rek la. baax a baax ñu topp Sen Lamb TV di leen ziara waaye mën a nekk national international ñu ngi nag toog ak nga xam te ne suñu mag la suñu papa suñu xarit di di bi <laughs> buur géwél ma fas yéene ko nuyu bàyyi ko mu nuyu internet ñu daal di waxtaan ci li nga xam te ne nii moo nekk actualité làmb waaye combat yi nga xam te ne nii ubbeeku na suñu kanam naka la ko gisee buur nuyu naa la ziar la ah sama ex jërëjëf nday Mbàkke sa jëkkër yàlla na dee loolaa koy ñaanal comme ma takku dënd ba tey xanaa rek nday la ziar rek di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wassalaam di ñaanal suma waajuru jigéen fa mu tëdd yàlla na ko yërmande suñu borom fekk moom ak kum fa fekk ak ko fekk di ñaanal suñu waajuru góor yàlla teg ko loxo ak suñu tànt ak njaboot gi waaye di feddali suma yaakaar ak suma kóllëre ci sama bunt cheikhul xadim di cheikhul xayri baabul xayri mawlaana cheikh ibrahim ibni sëriñ mbàkke madina di ko ñaanal sama borom defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim di ko ñaanal magam ju baax ji nga xam te moo toog toogaay borom Madina ci yéen bu diis bi nga xamante ne moom la yéen di seen Cheikh Madina di ñaan yàlla yàlla na ko borom taawule di ndokkeel doomi Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Mokhtar mi nga xam ne tey moo toog toogaay bu taaru bi di toogaay Cheikh Mouhamadou di ñaan yàlla yàlla na ko sama borom saxal waaye di ndokkeel góor ga ni woon illaahi kalimatillahi ulyaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir nga liggéey bu rëy bii mu naalal Cheikhul Khadim yàlla dimbali ko lépp yekke ci kanamam di ci ndokkeel sëñ Amdi Modou Menda mi nga xam ne moo toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ziar mbokk moo Seydil Boubacar si moom Cheikh Mouhamadul bal xaw mi yàlla suñu borom roof ko te dëgëral ko te barkeel ab liggéeyam fi barkeel Cheikhul Khadim euh, euh, fi barkeel Cheikh Tidiane waaye di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne moo toog toogaay Mawlana Cheikh al Islam di ko jaar jaale rakam ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Aqibu di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sama borom jokkaleeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ko ñaanal njabootu Mawlana Seydou Islam gépp di ko ñaanal waa Canaba di ko ñaanal tey Cheikh Amadou Mokhtar mi nga xam moo toog toogaayu Seydina di Imaamullahi alayhi salaam doomi Seydina Mandione di ziar réew mi yëpp Ndeye Mbacke di la ziar di ziar Kalidou mi nga àndal mi sa caméraman di ziar borom kër gi nag. non borom kër gi c'est la ñetteel. ah sa dañuy teel a. ah man bokkuma ak sa jëkkër sa jëkkër tapet la man murit laa géwél laa <laughs> tapetuma loolu. déedéet tapetuma loolu. bu ñu yooyu ziar la bu baax a baax yaakaar naa ni événement bu mag moo fi romb diggante Siteu ak Lac de Guiers combat bi ni mu déroulé wu Bour Gueweul noo ko gisee. waaw bi mën nañu wax ni que ak quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais issus bi combat bi am loolu la foogoon wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek la ñuy wax man mi bokkoon naa ci ni woon Siteu ko ak daanee par avertissement moo moo daan su ko daanee par quatre appuis moo daan boo ko daanee par décision arbitraire moo daan parce que lii démontré loolu xëy na wax ju nag ça un peu euh, naqari ñenn ñi mais mën naa ko expliquer te mën naa ko démontrer aussi mooy que Lac de Guiers moo ëpp longévité ci carrière moo ëpp victoire moo ëpp expérience te il est le tey combat moom Siteu combat rachat la waroon doon mooy mu mën a récupérer waat son public ñëw indi benn xaru kanam bu bees bu wuute teg parce que ak lu mën a am mooy am na ay supporters mais jooyante yi ay supporters am dégg na ko xam na ko mooy d'accord même bu fekkee moom la ñu jox victoire avec la manière aussi neexuloon ay supporters am donc combat boobu combat la boo xam ne combat rachat la waroon doon mooy dafa waroon ñëw teg ceexal mais calculer na ba Siteu <laughs> benn avertissement la am pour se délibérer donc buñ ko joxee victoire moom Lac de Guiers 2 la ma waxoon rek laay wax mooy que le mérite revient à Siteu sincèrement bëri na ak Lac de Guiers temps boo xam ne ku du mut loo amoo ko ci moom mooy tenir ko tenir ko tête pendant vingt minutes certes Lac a dirigé le combat certes Lac yóbbu na ko ardo mais li ñëpp foogoon keroog amul donc ubbi na làmb Siteu moom Lac de Guiers moo validé ticket bi Siteu waroon na am tey pour dem dans la cour des grands donc nag loolu bu ñu ko waxee li muy servi dafa servir de leçon à Lac de Guiers mooy mu toog jàngat lu bari bari bari bari ñu bañ ko wutal rek ay <clears throat> diw bëggu la dañ la xeex Sénégal yi bëgguñu la parce que il a dit bi mu toogee ci plateau bi mooy dañoo buggoon sacrifier non non pour man Lac de Guiers 2 doit avoir l'âme d'un champion le vrai mental d'un grand champion mooy être serein ci lépp xam fi mu jugee ak fi mu jëm maintenant carrière dafay gën a difficile mu neex ak mu naqari ndax tey li ma wax mooy fi ay moromam toll seen njëg gën a cher moom foofu la toll njëgam di gën a wàcc te ala kulli xaal dafa waroon mën a delluwaat sur la cour des grands ndax ay moromam ñoo fa nekk war a mën a bëri ci seen biir mais moromam yooyu tey koo ci ne avancé la guerre daal naan bëgguma ko parce que combat am dafa bëri ay nuances wax ji dafay bari du ci moom mais dañ ko wutal ay noon de partout ba jàpp ne ni ko fu mu gesu noonu moo fa nekk te du noonu li mu wax waa kër Ama Baldé champion kenn du ko gunge ci wutal ko ay noon champion kenn du ko gunge ci ay saaga champion kenn du ko gunge ci ku génn nga ni bëgg ko champion kenn du ko gunge ci mbër sàngam mbër sàngam moo la jaay moo la teyal déedéet champion da nga koy concentré wu sur l'objectif moom benn esprit de gagnant un mental de gagnant en tout cas li des ci carrière sa va très très compliqué alors que ñi mu war a mën a bëril bari na wax dëgg yàlla yonte bi am na bor bu di dox ci digganteem ak tafaatin pourquoi pas heure bi waroon nañu waxaat genre combat mais tey combat bi dafa combat yu bëri parce que ñun dul bëre sart dañu xaw a bëri ndax du bëre ak Sa du bëre ak Balla du bëre ak Ama du bëre goy gi Gui donc ñàkk na déjà quatre adversaires ñu ngi naan Lac de Guiers Franc certes combat bu mën a nekk la parce que war na mën a bëre bëre ak Franc mais dem bi ma déggee laa sóot damaa sóot te ku ne xam na ni Franc mën nañ wax ni que à quatre vingt dix neuf pour cent jàmbaar ñuy tëgg ay combat am bi ñu ko tuddee la guerre de le combat de Lac de Guiers de France ça ne nous intéresse pas donc Lac de Guiers kan lay bëri. fi mu toll nii ndaxte may si te sens rek ñu bëri dañoon dafa wàcc may si te sens bëgg a wàccaat mayaat keneen est-ce que du métti. waaw xam nga liy justifier loolu mooy ses dernières sorti mooy même bu fekkee dafay am ndam da koy am avec la manière loolu neexul ay supporters am neexul amateurs yi neexul yenn certains promoteurs yi. ndax promoteur dañuy bëgg combat bu neex combat boo xam ne ndam day dem wala ndem dikk mais boo xoolee ces dernières sorties ci Eumeu Sène ba ci sorteem ak booy Niang ba ci combat bi mu mujj c'était des combats très amers wama chey na illa maalim na il faut que ñuy accepter ñun Sénégal des fois di wax di dëgg loolu pour man loolu mooy dimbali champion bi bañ ko demal nga déggul li buur di wax buur daf lay xeex bugg la déedéet c'est pas ça ñun on a aucun problème avec Lac de Guiers 2 au contraire on a eu de très bonnes bonnes relations mu ne un gars très humble et très discipliné mais mentalité bi ñu koy abal laa d'accord te saabu bu rek day communiquer vers ce sens la ba tax xëj na jaxase ko ak guy gi jaxase ko ak Balla Gaye 2 jaxase ko ak Kioké te statut bi mu yor tey ak fi mu toll ci làmb ak fi mu jaar ci làmb daje ndaanaan yëpp donc du comportement boobu lañ ko war a abal donc nag làmbam tëju na kan moo koy ubbi ak ci naka nga koy tëjee c'est ça la grande question. bu ñu fait la force dispersion lan lay def parce que tey bu la de mu ne man drapeau Guédiawaye laa yor mais buy metti drapeau Guédiawaye la jël ñu bëri am ci sous sous-entend ne moo ko waa Guédiawaye am na loo xam ne mel ni seen diggante dafa dafa xaw a xajam. Guédiawaye moo am problème depuis longtemps man je me rappelle ndam si yàlla si Daouda Seck bi muy dundu man mësa ma fi wolu personnellement man ak Modou Diouf ñu fekk kër Pape Mama mu ne ñu carrément kër dañu bëggoon man ak Pape Mama dox boole suñuy rakk parce que gis nañu lii xeeñ te bu sottee du neex doobu yow des problèmes internes Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 Gouye Gui Lac de Guiers 2 le courant ne passe pas mais dafa am beneen phénomène léegi bu judd gi jaay boo xam ne xamuñu ko woon mooy mbërëntaan yi léegi ñooy génn di allumer le feu mbër yu ndaw yi ku ci nekk ci camp ba nga far boo génnee da ngay clash ci la mag Balla Gaye 2 est champion incontestable de la ville de Guédiawaye loolu mooy dëgg parce que moo fa dégg roi des arènes. bi sax. moo délibéré bi donc boo tuddee Balla Gaye tudd Lac de Guiers kulli xaal boo tuddee Lac de Guiers tudd guy gi boo tuddee góor gi di nga tudd Sa Thiès di nga tudd Alioune Seye ba ci xale yi mujjee jund ay ñoom fils de ay ñoom nangu xam nga ay ñoom fils de Balla ay ñooñu ay nangu maanaam donc maintenant waruñu woon bàyyi xaajaloo boobu def ay cassure mag ñi génn ku ci nekk am foo far barki dem gis na image bu rafet Pape Mama taalibe Sëriñ Afia bi boole leen këram mais gis ma fa Lac de Guiers gis naa ko géej waaye yëpp suuf Lac de Guiers 2 loolu am na lu muy tekki donc géej waaye am nay mag ñu baax ku ci mel ni per Diaw nga xam ne c'est un effet Diaw di la ville de Guédiawaye ku ci mel ni Pape Mama ku ci mel ni Bara Gueye Kilin Ouel ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye ku ci mel ni la Diop mais nañu dajalee seeni doom balaa ñu leen di jiboole ñu jéem a comprendre quel est le problème ku ci nekk li ci sa dënn ñu may la opportunité nga génn ko ci sa morom bu ku ci nekk libéré woo rek après problème bi dafay neex rek la ñun dëkkuñu géejawaay mais c'est beau de voir mbëri géejawaay nekk benn parce que Père Balla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana loolu la doon xeex moo nekkoon itteem Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana loolu moo nekkoon itteem Père Ali mi fi des tey di ñaan yàlla yokk fanam dëgëral ko loolu mooy itteem maam mi wuy ji tey aljana ak ñoom Père Aliou Seye ak Lac Guiers mi nga xam te nekk fi Lac de Guiers numéro un tey lii seen rêve moo nekkoon que mbëru Géejawaay yëpp bokk ndey bokk baay Grand ni muy sonnee ci xale yi lu mu ci am amul ci la daal waaye bëgg Géejawaay moo tax donc ñun bu ñuy wax ci sens la ñuy wax waxuñu pour dégriner Lac de tey ni mu demee ci côté ba mu ko demee ci côté Balla Gaye dañ ko dénoncé bu ko demee ci côté Gouye Gui dañ koy dénoncé bu ko demee ci côté Sa dañ koy dénoncé parce que on est pour wax li ñuy wax te dañu gëm ni que li ñuy wax xëy na bu ñu nu mayee nopp tuuti rek defar li gën a jur donc nañ jéem a booloo bokk ndey bokk baay muy géejawaay muy Pikine muy beneen gox c'est l'union qui fait la force ay nit bu ñuy wutandoo dara bu ñu àndee nekk benn la ñuy wut ci la di gën a yomb mais bu ñu tasee <coughs> pour ñu am ko dafay jafe ah fi mu nii moo tax ci moo tax tey ci trou bi géej Géejawaay nekk wala ay Pikine ci trou yi ñu nekk nii loolu moo koy justifié parce que am nañu nekk benn. ayca ci li ñu ñëw nag yaakaar naa ne benn combat laa bu ñu dugg ci diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès yaakaar naa ne Eumeu nag Balla Gaye ñaari yoon boo ko ci mbër ko jommal war a bëri raxam lan moo war a nekk taxawaayu Sa Thiès ci combat boobu. Sa Thiès dama wax ne am na pression bu rëy ak lu waay mën a wax. pare ki muy bëreel dafa bokk ci mbër yi gën a rusé ci làmb mbër mi gën a violent ci arène mbër mi dàq mbapat ci arène sénégalaise ñi ama seen dafa daan un champion mel ni Balla Gaye de deux fois ku ni Sa na Balla Gaye Sa Thiès est le copie conforme de Balla Gaye 2 donc Sa Thiès pertraat digganteem ak ama seen loolu ça serait une humiliation totale ak lu ma naaw donc Sa Thiès bu bala Gaye mënta jël boro bi Sa Thiès dafa war a jël bor bi nee naa ko buñ la ne yaay xale yaa ko mën ku la ko wax mu ngi lay nax boo dajëg ama seen di nga bëri di nga xeex mu lay neex ak mu lay naqal non tactiquement eh, Saliou lu mu indi dina ko fekk ça je vous le ama seen li gën a jafe ci mbër la yor mooy la détermination mooy si la déterminé pour mbër mën ci moom dara dafay jafe te xam na naka lay bëre ak ñoom xëy na nag Saliou il est plus jeune Saliou am na benn fort mooy que il est mais certaines erreurs yi ma ko gis moom di ko commettre sur certains combats bu ko commettre contre Eumeu Sène Eumeu Sène la koy daan loolu moom lu leer la donc pour mu daan Eumeu Sène dana ko respecter pour mu daan Eumeu Sène il doit se concentrer sur l'objectif pour mu daan Eumeu Sène il doit être très préparé et concentré parce que moom mooy xale am na foo xam ne su fa dooleem yeggee mën na nekk avantage ci moom te Saliou ci mbër yi dàq bëree ci làmb ji la bokk il est très brillant mais son problème mooy que il est brouillon non c'est vrai brillant mais il est brouillon li tax brillant mooy Sa Thiès ci benn jàppante yow ak moom mën na ci bëri juróom-ñaari clé yu bokkul avec facilité mais son seul défaut mooy lim bëgg def su ko digmalee da koy def ci lay amee mbaa bu ñàkk mooy que li waral loolu mooy que ay action ci làmb amul précision mooy même bu ko acte bu rëccee sax daf koy jéem a forcer de par la force te un lutteur si expérimenté ko ma seen loolu daanu ko donc il doit se concentrer sur l'objectif Eumeu Sène moo daan Balla Gaye de ñaari yoon daan Sa Thiès benn yoon loolu way la woo xam ne dootul fay kër Double Less balaa mi dini en tout cas combat bu neex la boo amaa yi di xaar avec impatience Eumeu Sène bërki dem bi ma ko laajee daf ma ni sama combat ak Sa Thiès cu cu sax nañ leen tuxal ah, ma ne ko lu tax mu ne ma dinañu bëri ba ba stade bi xam ne bëri nañu parce que Eumeu Sène bul fàttali ne que moom ak Salif pratiquement même taille xëy na Salif moo koy sut tuuti xëy na li mu mën a indi mooy doole <clears throat> ci combat boobu parce que mag ak xale am na foo xam ne bu ñu fa yeggee doole xale mooy wax. ah safara soosu de jaaxal na ma de te safara soosu ku muy bëreel di nga ko mos. xëj na nga mettre ko à l'aise bañ ko mettre ci benn situation bu décisive mooy nga jox ko respect ba mu gëm ni ko boo ñëwee da ngay bëri. waaye bis boo ko menacé wala nga xabtal ko ne dinaa la duma dinaa la def nang ba mu xam ko ci yow bu ñëwee doo ko ci jiitu waaw ji koy paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram boo ko dóoree day fayu boo ko saagaa mu saaga la boo ko kaataa mu kaata la façon mbër boobu. yaakaar loolu leer na ndax Balla Gaye Eumeu Sène waxatuñ ko Balla Gaye sax ci sañuy wax mais fu mu toll nii làmb ji ubbeeku na ci kaw Balla Gaye. Balla Gaye Tapha Tine revanche Balla Gaye la nga gi ñaari mais c'est mais gëm naa ne. ni ma dégg Abdou Aziz Ndiaye moo xëy dem na bu ñu am combat bu ñuy jital combat Tapha Tine Balla Gaye 2 la ñuy jiital. revanche bi chose mais li ma jaaxal bool booli li ñu gëm mooy que Tapha dafa bëre bëre combat royal te effectivement mooy meilleure option ci ñoom xaw ma nag est-ce que dinañu rester seen position ba am loolu parce que Tapha tenté couronne bi pour la première fois dafay gën. mu war a def aller ba noppi defar retour mu xaar Modou conserver chronom am di am chance su bëre combat royal bu fekkee booy Niang moo jël couronne bi am di amaat chance su bëre booy Niang combat revanche mais pour départ dellusiwaat ci Balla Gaye 2 su fa amee defet Modou Lo dootu ko gestu booy Niang dootu ko gestu donc pour man pour les bool-bool seen meilleure option moo ñu xaar combat royal bi c'est pour bientôt le première bu matee ay quarante nangam jour ci lay am pour man Tapha Tine dëpp moo ko jural lii tey li tax mu yéex parce que ku ne xam na ni claf ba euh, ni ñu koy tuddee sax tournoi TNT ba défaite ba mu jëloon ci Ama Baldé bokk na ci li gën a tilimal carrière u Tapha donc delluwaat Balla Gaye mi la daanoon daanaat la ñaan lu ma ko yàlla damay damay analyser rek d'une manière générale daan la muy une deuxième fois est-ce que gestuwaat ñële dinañ la gestu ñe ñële duñ la jël duñ ko def waaw no grand contrepartie bi lu mën a nekk la Siteu ñaar ñi alaakul xaal dina ci bëre kenn dina bëre Balla Gaye de mbaawu bëre Ama Baldé lu lu logique la parce que fi mu jaar tey mun a ko delloowaat ci pët yi ci te bëri na fekk daan na fi ci mag ñi Papa Sow bër ki dem diggante mag Lac de Guiers 2 donc validé na tikem pour dem fekk mag ñi si te bravoure rek benn raison la ci warat mën a tax mu fekkee muy benn deuxièmement public bi mu am permettre na ko tey mu jar cent millions parce que public bi mu am am na VIP yu bëre cent millions kaaru public bi si amuloo ko donc forcément dafay dem fekk ni ci kaw mënuñu ko bañ làmbam ubbeeku na. Ama Baldé ñu bëri ne combat bu dër bu saf sàpp la ñoom ñaar même si que Ama Baldé am na avance mais gars yi bëgg nañ man Ama bi ma ko laaj laajee démb dafa ni effectivement war naa mën a bëri ak Siteu bi ma waree mën a bëree ak moom yàgg na. bi arène nationale. les vidéos sont sur Bprod bi ma waree bëree ak moom yàgg na. mais dama amoon objectif mooy bëree ak Modou Lo donc Ama bañul bëre kër bi ma ko def fu ngeen koy bëree mu ne ko mu ne ma xanaa kon dañuy tabaxal stade bu bees <laughs> non parce que Ama Baldé lim yor rek xajul arène nationale. waaw c'est te bu dee ci côté business côté bu indi xaalis mooy combat bi ëpp xaalis ci histoire lam donc pour pas ci Ama Baldé ndax Ama mu ngi def benn aller te war na defar retour. balaa ñuy tàggatoo moo dugg si moom mu jógee ci combat royal mën naa déception bu gën a ci àddunam Modou Lo moo ko teg. mu war a bëri ak ki nga xamante ne nii moo ko ëpp expérience moo ko mag si laam ba pare nekk mbër bu dangereux psychologiquement Ama ba naka waroon a taxawee ci combat bi. bi ma ko laajee daf ma ne góor du ñi ma gàcce góor ñi ma gàcce cela veut dire que Modou Lo du ma daan Gris Bordeaux daan ma Ama Baldé bu nekkee ci ni mu war a nekkee même keroog pour Modou Lo daan ko ça ça ne devait pas se passer comme ça dama ko dénoncé mu saaga ma ndey saaga ma baay xas ma mais je savais très bien li may fu leer boo ma balee daanu Modou Lo keroog dana ma jaaxal Ama Baldé bu njëkkee du mel nii Ama bu njëkkee day rakkaaju j'ai pas encore vu le boy waaw ah. j'ai pas encore vu Ama Baldé takku nag jàjju ji mu ngay dem bitim réew waaye jàpp naa daal ci li wax mooy buur góor du ñeme gàcc wax la ci biir wax mooy il ne va pas subir une humiliation vis-à-vis de Gris Bordeaux Ama est plus jeune moo ëpp sañ-sañ waaye ki muy dajal bandi la non bandi la sama nuroo waale man ni ma nuroo rek mu ni ma naqaree te ngóor soosu man rek la compte <laughs> Gris Waga la maa ngi koy wax boobu te dama ne la waa Fass bu ñu jëndoon deux ganaar def group doo xam ban kër lañ koy rendee kër guñ kër gañ koy rendee kër gañ koy soqee ak gañ koy saafe ak gañ koy lekkee du doon génn kër ñooy écrit bi ëpp pexe ci àddina parce que làmb dafa nekk seen deret historiquement te écrit Fass patrimoine la ci wàllu làmb te bés bi ñor na leen lool te Gris Bordeaux bu la set day ñëw teg jeexal tey am mbaamu ñàkk gir Gris n'a reculé devant personne mooy day ñëw tegalalu tàng amaa bi ma ko ne say supporter dañu la yombalal combat bi dani ma ku ma ko yombalal tooñ ma ndax Gris Bordeaux mbër jàpp ko kon wël bit gang déedéet di nga mos donc Ama Baldé dem na France te gëm nañ ni si le sept dana dellu si te dina mel na mu war a meloon en tout cas combat boo xam ni il doit être le favori parce qu'il est plus jeune te mu neex ko ak mu naqari ko dafa war a daan Gris Bordeaux s'il su bëggee taxaw ci même position bi mu taxawoon yóotuwaat la muy yóotu pour jot ko il doit battre Gris Bordeaux mais est-ce qu'il le bu fekkee ni ñu abordé seen digganteem ak ak Modou lañu la ñu abordé combat Gris duma ci d'accord tey li Ama yor ak li ko wër lépp kumpa la war a doon ci Gris Bordeaux sous plusieurs mooy ñu ko war nañu noppi nañu nëbb seen jeu nañu nëbb seen stratégie Ama Baldé fàttul lëlu nëbb stratégie il faut mu doon kumpa ci Gris pour bés baa mu mën a créer la surprise mais pas ni ñu aborder combat bi passé dañ ko diisal ci Ama Baldé ba attanutul bés bi waaw dañoo daan te bëreeku te yóbbante galgal ubul làmb li may wax Ama ne ko dégg te je sais dina xam li may wax lu mu doon Ama Baldé buur nee na soo bëggee daan combat bi bu ko aborder de la même façon que ni nga aborder sa combat bu boo gisee lu ñuul daw def daw lan <coughs> waa xanaa rek ñaan axu làmb ñu gën a bokk ndey bokk baay muy CNG muy lutteur muy promoteur muy manager bu ñu ragaloon daanaan yi doon wax ci làmb ak yi daan feeñ ci làmb as ndaw nduku man gor si gisatoo ko estat te pourtant amateur bu mag la woon daa ñëw solo ba rafet ndaa la xaalis su bari ku yëngu mu taral la noonu lañ daan dundee làmb comme ni ko Alaaji Basiru Jaañ ma dem comme ni ko góor gi ci yéen daan dunde nañu yaatal dënnu làmb ba amateur yu tedd yu baax yi daan sol lu ba rafet sol sa ñetti abdo couple ma madame mu tàggal lu ba rafet gaare trois euh, euh, gaare sa oto bu rafet ñëw seetaan làmb ba mu jeex da jippi yi am liberté di exprimer ci làmb ñu may leen opportunité boobu paa bu ñu génnee ñu saaga leen paa bu ñu génnee ñu xas leen ñun bu ñu waxul ci lu neexal làmb lu ñu war a def mais tey da ngay dem benn instant da ngay dégoûté par la lutte dimanche day jot boo war dem la am sorti préfères rester chez te làmb baaxuwul noonu làmb yëfi ndaanaan la làmb du yëfi como dangay añ ba suur di invité say xarit. ku ci mel ni metre Ndiaye ba sama avocat bi dimanche jot ma yóbbu tey xaritam ah ñoom dan ah, euh, ñu toog togg seen yaasa ginaar yu neex kër madame Ba añ ba suur naan atta yaay Mohamed ku ne taal si oto ñu sànca ba rafet dem esat géwél bu la jiin nga yëkkati xaalis may ko loolu la làmb soxla soxlawul ay dammkatu chaise soxlawul ay saakakatu ndey donc di ñaanal ñëpp jàmm nday Màkki di la ñaanal sa jëkkër jàll na am deuxième femme balaa yàgg ndax yéen naa lool lu mel noonu di ñaanal Khalidou mooy mu tekk jabar ndax nit ku bon la moom tamit def ko tu dégaa la waaw ah, di ndokkeel ñëpp rek di gërëm boroom kër gi nday Màkki di jox ñépp dig daje ba beneen yoon mbaa doo gaaw ñëwaat <laughs> doo ma fekk. <laughs>